société civile ña nga xam ñoo ci bokk ñoom ñëpp la leen tax a yëngu mooy international ak li nga xam ne daal du kenn nit ko moom loo xam ne kat ñëpp a ko bokk ñoom bokk ñu pouvoir wala sax bokk ci kujje gi déedéet ñoom la bëgg rek mooy ku ci nekk daal sa ñagg-ñaggi xool nga mën koo fësal waaye itam jaarale ko ci démocratie société civile nag moom mi ngi daal di ëmb ay kuréel yu nga xam ne ay organisation non gouvernementale la yoo xam ne mi ngi ci nag maam yi la ñu gëm ba tax na gis nañ ne acteurs yi nga xam ne ñoo bokk ci société civile bari na bari boo xam ne ku ci nekk daal ak la nga gëm ñuy nekk fi Sénégal ñiy nekk ci bitim réew daal di wasaaru ci gox ya gox goxaan yi la tànneef lag moom ku ci nekk daal soob na la noo xam ne sa doxalin noonu ngay defee waaye leader ku ci nekk daal di nga am kàddu ba tax na ñii dañuy liggéey ci wàllum gouvernance politique économique ñeneen ñi ñi liggéey rek mooy rek ci wàllum diine ak la nga xam ne mooy a fexe rek ba wàllum démocratie ak bonne gouvernance daal di gën a ñoŋ waaye gis ne société civile ñi ngi waajal tamit ci élection présidentielle bi nga xam ne moo ñeel ci atum 2024 mooy wàllum waxtaan waaye lépp delluwaat ci morom waaye tamit di ñaawlu léeg-léeg léegi mbiri diggu dóom yi nga xam ne gisañ ko fii ci suñu réew ëllëgu Sénégal nag tax na bu ci ñoom rek ñoom ñu daal di yëkkati seen kàddu daal di yuuxu wàllu nekkat ku jéggi wala ñi nga xam ñoor nguur yi ku ci nekk daal war nga ci def rek sa kéemtalaay kàttan ngir waxtaan bi a wér waaye bu fekkee ne option boobu gis xam ne gis nañ lii nag moom da bàyyi ci lii ngir ëllëg gis ne ku ci nekk daal ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan waaye tamit fexe ba askan wi mën a xeltu maanaam wàllum conscience ci askan wi fexe ba loo xam kat dañ koy waxtaane mu jur njariñ waaye bëri ñoo xam daal neen kat am na loo xam dañ koy def pootum mbir nekk ku ci nekk daal am ci nga xam ne mooy sa wàllu ci nar bi tuddee ko ay assise nationale waaye fexe wàllum gouvernance ñu mën koo am maanaam wàllum gouvernance politique ci état bi ak état de droit ak wàllum éthique politique waaye tamit dafa delluwaat ci acteur politique nga xam ne tamit ñoo bokk ci pouvoir bi wala ñii bokk ci kujje gi ñoom message nga xam ne moom la askan yëkkati xët dañ dañuy yëgoo gis nañ ne lii nag moom lay raam ca ñag ba la jëm te buñ defoon nak rek du baax suñu réew ba tax na ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum religieux ci wàllum politique ci wàllum culture lépp dañ koy daal di associé fexe daal ba askan wi rek du daal di dummooy ñi nga xam ne ñooy politiciens yi